asalaamaaleykum waa seen mobile TV te dañu ñëw tey si une nouvelle vidéo tey dañu leen woon naka ngeen mën a sécuriser seen i données mobile ak euh, seen application yi waaw si benn application boo xamante ni mu ngi disponible sur Google Play Store mën naa ne ñaari application la sax waaw boo leen ci am baax na aussi way tout d'abord dañuy ñëw nii ci Google Play Store bi boo ñëwee nii si application Google Play Store mu ngi nii premier application bi da ngeen di bind Apolog Pro comme ça gis ngeen ko nii. Applog Pro ngeen di bind boo leen bindee nii Applog Pro maintenant application bi ngeen di gis nii la moo nekk nii photo yi moo am 10 millions de téléchargement way euh, buñ ci cliquer nii duggaguñ ci actuellement buñ ci cliquer da ngeen gis nii note yaa nekk nii gis ngeen moo nekk nii nga ko apprécier maintenant moom ngeen di def télécharger oui Applog Pro bii nii moom ngeen def télécharger aussi tamit am na beneen boo xam ni euh, Applog la boo leen ci am rek. baax na ñaar yëpp bu leen neexee tamit ngeen def ñaar yëpp seen téléphone bii tamit da ngeen di bind apolog nii comme ça ngeen def recherche boo leen defee recherche application bii nii la aussi am naa da ko xaw a kii moo tax mën en jour application bii nii tamit bu leen neexee tamit bu baax la ma ngeen ko télécharger oui mais dañuy njëkk a ñëw ci bële bu ko defee ñu soog a ñëw ci bii maintenant bu ñëwee ci apolog pro bi oui moo nekk ni actuellement téléchargé na ba dafay def installation maintenant dañ koy xaar mu installé wu. dañuy patienter quelques secondes pour que l'application application bi installé maintenant mu ngi installé wu nii actuellement oui photo yi moo nekk vous le voyez comme ni ngay l'application, application yi photo yi ñoo nekk vous le voyez par empreinte par code selfie euh, lock notification etc. oui application bi actuellement ñëw na gis ngeen ba application bi ñëw ni gis ngeen ni beneen application moko pour maanaam mu verrouiller ko mu nekk apolog bii nii bii apolog la moom tamit mais bii apolog pro bii nii gis nga ba application bi installé wo automatiquement dafa wax ndax ma verrouiller application bi nii waaye bu fekkee da ngeen bëgg di verrouiller application da ngeen bës verrouiller après nañ leen woon application bi tamit na lañ ko utiliser maintenant bu leen ko bëggul da ngeen def ci trois points yi maintenant application bi installé woon léegi dañuy def ouvrir bu ñëwee nii ci ouvrir maintenant application bi moom moo nekk nii vous application bi ñëw na lan la ñu wax ni ñu duggal suñu code waaw bu la neexee aussi mën nga bës fii nii pour choisir code bi la neex quoi gis nga yii yëpp boo ci choisir rek ay ay façon type de code la gis nga bii nii code la aussi tamit bii code la gis nga bii par par kii la et cetera mais ñun modèle bi intéressé wuñ bii tamit par code la gis nga genre genre code kii nii la par. par traité yi ngay ngay kii mais dafa xaw a compliqué dama leen invité ngeen jël bii nii bii nii bii nii mu nekk kii bi chiffre yi wala ngeen jël bii nii mu nekk code pin code euh, modèle mu nekk euh, schéma maintenant damay jël bii exemple bu ma jëloon code bii nii waaw léegi code bi ma bëgg a def un deux trois quatre cinq six waaw code bi lu la neex nga si bu la neexee mën nga choisir quatre chiffres bu la neexee mën nga choisir cinq chiffres bu la neexee mën nga choisir chiffre bu la neex quoi ba kii bu fees bu la neex mën nga jël trois mais exemple damay jël 1 2 3 4 5 6 mais yéen yéen choisir code bu leen neex bu leen ko defee par maintenant da ngeen di bës créer léegi ngeen defaat code bi exemple ma jël code bi nga defaat sauver gis nga application bi tëjeeku na fii lan la la wax mu ne question de secret lii question de secret la mu ne nom de ton premier animal domestique maanaam sa animal bi nga xam animal domestique la boo bëgg bu fekkee moom nga bëgg def côté da ngay bind fii réponse bi bu la neexee aussi mën nga bës fii nii boo bësee fii nii mu ne euh, gis nga votre numéro d'école primaire euh, votre waaw votre numéro d'école primaire mu ne vos euh, nom de professeur de l'école primaire bu la neexee mën nga jël bii aussi bu la neex rek exemple bu jëloon bii nii ñu def d'accord bu ñu defee d'accord exemple ñu bind nom bi fii mën nañ def njaay exemple bu ñu defoon njaay ni gis nga code bi ñun rek ñoo koy xam heure bu ñu fàttee mot de bi rek bu ñu laajee question bi dañ koy bindal njaay bu ko defee mu tijjee maintenant dañuy def sauver bu ñu defee fii lan la wax nee na autorisation vous devez accorder certaines autorisations à Apple les stratégies de sécurité waaw lii dafa wax pour maanaam autoriser application bi dañuy def ni autoriser oui gis nga fii la ñu wax pour maanaam ñu activer ko dañuy def nii bu ko defee ñu def activer léegi dañuy demaat fii bësaat bu ko defee bu ñu bësaatee vous le voyez oui léegi bu ñu bësaatee dafa wax ñu activé waat euh, Apollo Pro bi dañuy def d' accord maintenant ñu ñëw nii def nii Apollo Pro bu ko defee ñu def activé léegi bu ko def ñu defaat retour bu ñu defaatee retour mu indi ñu ci application bi maintenant application bi euh, maintenant tijjeeku na waaw gis nga pour plus de sécurité moo tax mu laaj ñi ne suñ code bi ñu dugaloon maintenant dañuy bindaat code bi bu ko defee ñu def nii code bi. bind nañ code bi waaye application bi ñëw mu ne attention les applications critiques sont verrouillées waaw mu ne am na application daf ko ñëw verrouillé ni automatiquement waaw ñu ne ko d'accord les applications yi mu verrouillé fii lay nekk gis ngeen yii yëpp daf ko verrouillé automatiquement bu la neexee tam bu fekkee bëggoo ko verrouillé da ngay bës fii nii gis nga dañ na galerie dañ na bu fekkee aussi da nga bëgg a verrouillé ces application fii ngay ñëw fi mu la indi nii par défaut maintenant application yi nga bëgg a verrouiller da ciy bës nii rek gis nga application boo bëgg a boo bëgg a rek boo ci bësee nii automatiquement daf koy verrouiller vous le voyez nii boo ci bës rek téléphone et cetera calendrier boo bës boo bës rek daf koy verrouiller gis nga nii yëpp daf ko verrouiller moo tax waaye daf ko verrouiller da ngeen xool seen application yëpp fi lay nekk boo ci bëgg a verrouiller rek boo cliquer dina ko verrouiller automatiquement maintenant. Verrouiller na bii bi dañuy verrouillé galerie bi légui sécurité sécurité fi mo nek ce kii bi mot de passe pour boko ko changer fi ngay ñëwaat changer de mot de passe fi tamit modifier la réponse de comme la réponse secret bi biñ def professeur yi ñu def ñi et fi mo nek préférence caméra d'espionnage bo leen ko activer fii nii manam ku jéem a jël sa téléphone diko ko rek daf koy caméra exemple boo ko activer ni nga def ni autoriser appareil photo bi autoriser wat ko léegi nga def sauver légui nit ku tante rek 3 fois rek daf koy photo automatiquement bo ñuy ubbi ko da nga gis photo bi fii nii verrouillage de la euh, minuterie lii boo leen ko activer euh aussi tamit mo moo nekk euh, intervalle de temps passi passivité oui lii nii boo leen ko activer manam euh, temps bi temps intervalle bi ni application bi daf koy tëju mais c'est pas l'appel légui dañuy def retour bu ko defee fi lañ ñëw fi euh ne rek lock rek lock time waaw boo leen activer pour manam temps temps application bi c'est pas l'appel waaw fi masquer les notifications manam notification yi nga xam day afficher bu la neexee mën nga ko masquer fi ni gis nga daf lay yob ci application bi direct bo ci bëssé ni exemple mën nga ko masquer en application ma nekk ni nga def ni autoriser oui masqué nañ ko da fay tak automatiquement léegi gis nga léegi boo defé chauffer tak na maintenant masqué nañ ko verrouillage des applications récentes et cetera empreinte digitale activer nañ ko euh, masqué app lock boo bëggee masqué application bi way pour bañ mu pour bañ application bi feeñ fausse message léegi gis nga daf ñu directement Play Store pour bëgg am ñu ñuy télécharger mais c'est pas la peine dañuy defar retour maintenant naa euh, oui maintenant plus de sécurité légui dañuy defaaratu ñu wan leen léegi nañ ni ci application ji nga heure boo ci duggé application bo génn bo duggaté daf lay laaj code gis nga maintenant laaj nañu ni code légui duggaat nañ légui dañu ñëwaat fii préférence légui fi ma leen bëgg wax ni alerte de sonore pour manam kuy jéem a essayer rek gis nga si le mot de passe est saisi plusieurs fois de manière incorrecte vous serez averti avec alarme que vous avez sélectionné sur euh, que vous sélectionné ou le texte que vous avez Euh, spécifié maanaam bu fekkee da ko activé ku jéem a essayé code bi tentative yu bëri bu jàllu rek dafay sonné loolu la bëgg a xamal fii nii fausse message d'erreur fii boo leen ko activé maanaam comme maanaam nit ki bëgg a dugg sa benn application te rus nga koo wax ni bul bul bul dugg ci application wala et cetera léegi da ngay sécuriser application bu ko defee nga activé fii nii gis na

gis nga la vibration conception fii ay thème la application bi et oui maintenant ñu euh, bu ko style de fond d'écran la fond d'écran bu def par défaut mais boo leen ci ngeen ko a à propos application bi maintenant dañuy génn bu ko ñu test. vous le voyez maintenant affaire baa ngi nii galerie vous le voyez galerie wala ñu ñëw ci TikTok sax def naa TikTok euh, codé nañ ko léegi bu ñu ñëwee nii ci TikTok non non non TikTok codé wuñ ko ñu génn euh, j'espère que galerie bii lañ codé galerie lañ codé galerie application galerie lañ de gis nga message bi laa lay wax gis nga lim bind nii xam nga boo leen gisee day mel ni message bi baaxul léegi boo defee d'accord dafay retour day génnaat automatiquement gis ngeen ni di génn ni léegi bu ñu si duggaatee message bi la ñuy indil gis ngeen. message bii nii tant que jëluma sama loxo xëcc ko mu yëg ci kaw rek message du dañ léegi bu fekkee ko xam xamu ko nag boo ko joxee nii mën na dugg nii rek bu gisee message bi te naan ah application bi de nangul dugg boo ne ko application dafa am problème mën na ko gëm parce que xamul luy problème boo bësee rapport day génn gis nga boo bësee rapport automatiquement day génn gis ngeen ko ni léegi boo ci cliquer nii pour bëgg a dugg nii ma wan leen boo ci cliquer léegi pour lii nii dañ da ngay jël sa loxo nga xëcc ko yéegal ci kaw gis ngeen boo ko defee rek automatiquement daf lay indi sa code code bi boo ko bësee même tentative yoo xam baaxul affaire du dugg gis nga léegi photo ma leen wax après naa leen ko wax léegi ma yu bëri bu ko defee ngeen xool gis nga essayé na tentative yu bëree bëri vous le affaire bi nee na euh, kii nii jàllul gis nga mu ne entrer le nom de votre professeur léegi bu fekkee kenn day bëgg a force di dugg fii nii bu bindee tur ba sonn affaire bi ñëw gis nga léegi bu ñu bindee gis nga affaire day bañ clavier bi laa bës affaire day bañ boo defee d'accord gis nga. c'est pas bon maintenant ñu bind ñu génn gis ngeen tant que bindoo sa code normal rek du du dugg exemple ñu yëgal ci kaw ni bind suñu code normal oui bu la booyee léegi affaire bi dugg na maintenant ñu génn bu ko defee ñu demaat si application bi xool ba xam jël na photo ba xam photo bi mu doon wax noonu jël na ko oui ñu xool ni léegi bu ko defee ñu ubbiwaat application bi maintenant léegi ubbi nañ application bi ñu bindaat ko pour plus de sécurité moo heure boo ci génnee dugg re daf lay laaj code léegi ñu dem préférence léegi ñu dem caméra d'espionnage oh des dafa désactivé léegi dañ koy def sauver activé wuñ ko woon de désolé mais léegi activé nañ ko léegi ñu te ñu léegi léegi ñu a testé ñu xool léegi ñu testé waat ñu xool ba xam léegi ñu testé ni ñu xool essayé maintes fois léegi ñu testewaat waat bu la booyee testé nañ ko indi nañu code kii bi mais c'est pas l'appel fii intéressé wuñ léegi dañuy demaat ci application bu xool bu ko defee ñu xool ba xam jël na caméra bi ñu leen di wax ni pour maanaam bu fekkee kenn dafa jël téléphone di bëgg dugg si application yi nga xam euh, autorisé woo ko léegi ba xam jël na photo bi maintenant ñu def suñu code léegi def nañ code bi gis nga mu ne attention caméra d'espionnage gis nga mu ne un espion détecté consultez ta galerie nga ne d'accord maintenant dañu dem si galerie ba ñu xool boo xam galerie bi fii la ko def wala suñ galerie photo la non kon galerie photo la puisque nekkul fii euh, bu nekkoon fii danañu won photo bi mais nee nañu consulter ta galerie rek la ñu wax maintenant galerie bi xam naa kon galerie photo lay wax naa dañuy dem suñ galerie photo bu ko defee ñu xool bu ñëwee fii ñu xool bu ko def bu ñu xoolee exactement gis ngeen ni photo bi moo nekk nii vous le voyez photo bi moo nekk nii photo bi mu jël gis nga dugg nañ suñu galerie gis ngeen ni photo bi photo bii nii la jël quoi léegi photo bi yow bu fekkee nit ki day jéem ubbi sa appareil bu ñëwee nii photo bi day leer nañu si yow c'est li mu tiim caméra bi moo tax affaire bi mel nii full j'espère que comprendre ngeen application bi ni muy fonctionner léegi dañuy ñëw ci benen application bi mu nek Apollo. oui maintenant les amis deuxième application mo nek ni dañuy ñëw pour démonstration bi pour wan len application bi léegi bu ñëwee sur Google Play Store bo len gisé ba application mo may permettre ni pour mo mëna a tijji bi léegi dañuy ñëw bu ko défé ñu bind Apollo bi ñu leen wax ni Apollo bi mo nek ni maintenant dañuy jéem def mis en jour rek c'est pas la peine ñu nek diko d'installer di télécharger mais plutôt mis en jour lañ ko def puisque application bi yag na ko mais bii moo ëpp fonctionalité bii mën nga denc say données ci biir mën nga denc say foto ci biir mën nga denc say video ci biir mën nga denc ay fichier ci biir lu bëree bëri daal mën na ko quoi dafa la bàyyi gis nga moo nekk nii coffre foor bi moom lañ koy dencee fii den def ngeen ko coffre coffre ko moo nekk kiiw privé maanaam gis nga application bi navigateur privé la navigateur privé j'espère application bi ñëw na Nous avons def installation maintenant dañuy patienter Nous avons application bi installation application bi installé Nous aussi ni voulez-vous faire, voulez-vous verrouiller l'application la nouvelle application de defee fermer da koy nous gis mais c'est pas l'appel nous application Nous dañuy ouvrir maintenant dañuy ouvrir nous, ouvrir automatiquement fii nii lu mu ñu wax pour maanaam ñu def suñu schéma gis nga pour maanaam boo bëggee bind sa schéma et cetera xam nga schéma bi exemple ñu def nii rek wan leen mais nee di def schéma bu leen neex dañuy def schéma bi nii schéma bi jàll na léegi lu mu wax accepter et commencer dañuy def accepter a commencer maintenant accepter nañ application bi bu la bàyyi fii nii pour nettoyer téléphone bi la fii pour boxer pour téléphone bi gën a gaaw et cetera bu fekkee bii da nga bëgg a tëj application ñoo nekk nii gis ngeen Google Play boo wàccee nii photo mu tëju gis nga nga wàcc nii boo wàcc rek boo bësee day tëju Instagram nga bës mu tëju ki Master boo bësee mu tëju conjugaison Facebook boo bës mu tëju application boo bëgg a tëj rek bii moom côté bi rek ngay bës gis nga photo boo bësee nii rek vous le voyez boo bësee nii automatiquement dafay tëju boobu bii moom noonu lañ koy tëjee gis nga boo bësee ni exemple ñu bës TikTok bi comme que TikTok bi tëjuñ ko woon ci bee bës Telegram léegi application yi nga tëj fii lay nekk protégé gis non désolé désolé application yi nga tëj ci kaw kaw lay nekk waa moo nekk nii du moins où sont les applications waaw moo nekk nii lii gis nga leen nañ rangaloo nii c'est que dafa xaw a yéex moo tax mais moo nekk nii maintenant gisee rek protéger bi moom mooy option waaye boo xoolee protéger premier kii bi premier option mu ngi ne la déverrouillage paramétrage fii maanaam pour boo bëggee changer mot de passe bi di nga schéma boo ko bëggee changer fii ngay ñëw vous le bu fekkee code euh, écrit nga bëgg a def fii ngay ñëw nga def code écrit mais boo ci def rek sebon bon maintenant fii euh, pour maanaam masquer mu ne masquer masquer le clavier lorsque l'utilisateur verrouillage empreinte digitale waaw maanaam bu fekkee dangay ngay utiliser empreinte bi waaw fii maanaam euh, pour rendre visible pour maanaam bu fekkee da ngay écrit nii. Euh, kii empreinte bi bu fekkee da nga bëgg nit ñi gis ko da nga koy bu fekkee bëgg ko da nga koy désactiver fii maanaam euh, véri comme ça téléphone di vibrer boo juumee boo bindee moo de passe bi juum téléphone dafay vibrer waaw bii ni euh, paramétrage de sécurité comme bële bi li ñu leen wanoon rek fii question de sécurité la pour maanaam boo fàttee sa moo de fa fii mën nga fee def loo xamante ni euh, sa question de sécurité lay doon comme ça exemple nga bind euh, mon livre préféré comme ni ko application rek di ko defee mon livre préféré comme ça nga ñëw def fii nii daal di def turu livre bu la neex exemple xam nga wala nga def tur wala nga def lu la neex quoi comme ça exemple ñu def nii mon livre préféré ñu daal def Mariama Ba nii comme ça euh, bu ñu defee ni Mariama exemple ñu def Mariama Ba waaw def ni enregistré léegi mon livre préféré nii def nañ opération sécurité moo livre préféré bi heure bu ñu heure bu ñu si egsee rek bu ñu fàtte mot de passe bi euh, bu ñu defee euh, mot de passe bu ñu laajee mon livre préféré tant que defuñ Mariama Ba duñu mën a amaat accès kii bi comme que def nañ enregistré léegi fii email la pour maanaam tamit plus sécurité boo fi defee sa email pour bu amee problème mën na la envoyé adresse email et cetera oui fii empreinte la activé nañ ko fii selfie de intrus maanaam pour maanaam bu fekkee sa téléphone na ko teg kenn ñëw di jéem a ubbi say application wala mu bëgg dugg sa données yi et cetera léegi daf koy jël sous forme de selfie boo leen ko activé nga def autoriser appareil photo bi maintenant activé wu na. oui après nañ leen wan comme bële léegi bu ñuy jéem a def tentative yu bëri rek dafay jël euh, sécurité bi quoi waaw général yi moom c'est pas l'appel maintenant ma vie privée perna fii mooy coffre-fort fii mooy coffre mun dama tam wax coffre-fort mais fii coffre la maanaam bu fekkee da nga fi bëgg a denc say données gis nga actuellement kii bi moo fees mais bu fekkee da nga bëgg a def photo fii la vidéo fii la fichier fii désolé xam ah, ngeen fichier fii fichier fii nii la euh, musique fii nii application fii lii pour bostee la mu gaaw exemple bu fekkoon nañoo bëggoon jël audio denc ko fii dañuy dem jëli suñu audio yi nga bës fii additionné nga dem jëli ji sa musique yi nga fi bëgg denc bu ko defee nga denc ko fi kenn dootu ko mën a gisati bu fekkee sa photo photo yi nga xam vie privée nga ko bëgg da ngay ñëw fii bu nga jël photo yi nga fi bëgg denc bu ko defee nga def ko fi kenn du ko fi gisati mais la même sos que video boo ñëwee ci vidéo da ngay bës fii nii additionné vidéo bu ko defee nga daal di jël vidéo yi nga bëgg a def bu ko defee nga dugal ko fi kenn dootu ko mën a gisati way c'est comme ça j'espère que comprendre ngeen kii bi nii la quoi fi navigation privée la way yi ay kii la exemple ñu wax leen ñu wan leen self entry bi maanaam bu fekkee kenn day jëm a di jëm a def tentative yoo xamante ni kii wu gis nga exemple bu ñu ñëwee gis xam xam nga ni ñu ngi bind code bi gis nga def nañ ni selfie yu bëree bëri gis nga ñu ne trop de tentatives incorrectes vieux restait ultérieurement gis nga génn nii nii actuellement léegi bu ñu duggaatee bu ñu defee nii gis nga exemple nii nii nii jël nañu photo bu yàgg te ki koy ki def intro yi xamul exemple jël nañu photo bu yàgg te ki ki koy def xamul ne ak téléphone bi jël na photo jël na ko photo lépp fekk na ko maintenant def nañ tentative léegi ba pare léegi bu ñu demee si application bi da ngay gis ni jël na photo te gis ni application bi jël na ko photo application yi xaw a bëri maintenant dañuy dem play store bu ko defee ñu recherche ko code bi la leen defati woon sax lii la de j'espère que dañuy ñëw fi bu ko defee ñu recherche non apolog la apolog euh, non désolé apolog maintenant bu ouvrir da gis photo bi mu jël léegi buñ ko ubbee nii da gis ni jël na ko waaye bu la bu la waaye photo baa nekk nii gis nga photo yi photo yi application bi jël moo nekk nii si waaye voyez bien photo yi mu jël moo nekk nii léegi tamit bu fekkee nit day jéem a essayer di ubbi sa téléphone ñii la koy jëlee photo yi ok ñu leen wax ngeen abonné ci chaîne bi bës cloche de notification yi pour di mën a jot suñuy vidéo ok